très cher ami internaute de la Sen Série TV maa ngi leen di nu di leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di àndee saa su ne ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série contre polygamie épisode 55 dañu koy door ak bu ndaw bu ndaw nag moom euh, gis nañ ni am na problème bu baax a baax ndax li sawru bañ a fanaan ak moom ak ni mu ko toroxalee ci kanamu njaago nekk na loo xam ne lu ko métti la ba na nag muy jooy waaye gis nañ ni njaago moom dace cee loolu nag di wane ni rek problème am na waaye changement dëgg am na ndax ku ne xam na ni bànneexu bu ndaw moo nekkoon bànneexu njaago njaago moo nekkoon bànneexu bu ndaw kon tey bu ñu demee ba ki nga xam ni moo di njaago bu ndaw am problème mu ciy kontaan ba ciy ree nga xam ni kon changement am na bu baax nag na daal di yee ki nga xam ni moo di bàjjen ngir nag mu waxtaan ak sëwru waaye nag gis nañ ni malgré li bàjjen def yëpp ak li mu wax yëpp taxul sëwru nangu sëwru jël na décision wam ne day yar bu ndaw te nag ni mu koy yaree mooy rek du fanaan ak moom malgré que moom euh, sëwru mu tëdd di ci saal bi arrangé wu ko benn yoon waaye nag moo ko ndax jàpp euh, pour mu corriger bu ndaw faaw rek mu jaar euh, di ko toroxal ak di ko métital ñu jàll ci tonton Maku tonton moom gis nañ ni du jóg ci seytaane mukk waaye du jóg ci di manipuler nit ñi gis mu ñëwaat si njaago ngir jéem a yàq xelam waaye nag mel na ni dalu ci ndax njaago moom du bu ndaw chaque fois bu ko tonton Maku di wax waxu seytaane da koy rek daal di euh, recadrer tey sax dafa dem ba ne ko rek dina ko boole ak euh, nga xam ne moo di sëwru te ku ne na ni Maku bëggul loolu ndax buñ ko boolee ak sëwru mën nañ ko génnee kër gi waaye nag wax na ko li nga xam ni mooy ay intention bu ndaw te mooy daal di seytaane dëgg la waaye jaxasekat la ndax euh, idée boobu moom moo ko jox bu ndaw ndax bu ndaw euh, mosul rek euh, moom moo ko ko digal ba noppi nag ñëw ci njaago di wax mu mel moom tonton Maako day def li muy mu daal la ko junjee ki nga a a ci moom bu ndaw moom nag toujours erreur bi def mooy di topp proposition tonton Maako ndax gis na a chaque fois tonton Maako li mu koy digal fu daal di am xel daal di xam ni tonton Maako li mu koy baaxut waaye bu noo dafa mel ni ku gumba taxlu ba lépp lu ko tonton mu daal di koy digal ba tax na tey bëgg na koo topp ci mbirum sëriñtu bi nga xam ni mën naa tas sëyam ñu jàll ci njaago njaago nag expliqué na lépp li ko tonton Maako wax eh, sëwru loolu nag tiital na sëwru ndax ku ne xam na ni sëwru su bañee polygamie c'est parce que papaam dañ koo sëriñtu woon ba mu gaañu loolu nag nekk na loo xam ni ko tiitaloon kon tey bu demee bañ naan jabaram da koy bëgg a sëriñtu dina te it nag dina am raison ci kaw euh, nit ñi ñu jeexal ak euh, astu astu nag euh, moom découvrir na secret bu ndaw ak tonton Maako ndax fi ñuy waxtaanee mbirum sëriñ bi ci la leen déggee te nag kon moom astu mën na nekk ki nga xam ni moo nar a sauver ba nag du naan café googu nga xam ni ci lañ nar a def liggéey bi nga xam ni day nopp sawru ba lépp lu bu ndaw bëgg rek mu daal di koy def comme li ñuy wax nag lu dul yàlla neen la nit bu fekkee ni nga dalaa jil teraanga nga bëgg koo ji safaan ba yàlla du la ci seetaan ndax ku ne xam na ni njaago tey bu nekkul woon ak moom bu ndaw du sëy ak sawru njaago moom moo def lépp ba tax mu sëy ak sawru tey bu bu ndaw ñëwee bëgg a aaki jëkkër ji écarté njaago loolu yaakaar naa ne yàlla du ko seetaan injustice mun ta weesu loolu kon boo ko internet di foofu la yem ci épisode 55 bu série contre polygamie ma leen dig daje ci beneen épisode waaye laataa boobu way leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi